xew. Euh, ndax jàmmaarloo nar naa amaat. ndax jàmm nar amaat ndax ci weeru koor gi lay tombeel sëñ weeru koor bii nii nii nii nii. rek nii Lamine. waaw. wax naa jàppale leen ngeen bind. bind ci weeru koor yi ma a am ci senegal yëpp. waaw weeru koor bi mooy fitna. ba Allahu. noter. waaw. Lamine. waaw. at mii ñu nekk. waaw at mu métti la at mu bari deret la at mu bëri ndox la at mu bari ay fitna la waaye. Mhm. biñ ko dan ujian jël mbaal yoo sotti essence taal ko mhm. loolu moom ñun waa Kayaar yéen def loolu waaw ñun waa Kayaar ñoo taal loolu ci taal rek ngeen yam non ci taal mbaal dama ni sain et sauf la ñu nit ñi waaye yéen xanaa foofu amul yoon ba ngeen fajal seen bopp mhm. gis naa affrontement buy oh, indi ak ci quai de pêche bu ñi nga sax ñoo di yi ñaawlu bu baax li nga fa am ñu li mënoon na ñekk. non lu ñaaw li noonu man mësuma ko gis ndax pour man ay jullit lañ weer wi mu tombeel nii weer wu sell la weer wu nit war a mën a profité tey si àddunaam mais waruma mën a concevoir ay nit alal kase tax muy dañ ku nekk di liggéey nga dem di taal matériel am wala boo ngeen di rayante wala di kojante géej te liggéey tax leen jóg loolu taxatul ñu naan jàmm. waa Kayar dafa métti lool ñu fi mu toll nii ay moo la quoi suñu liggéey mi taxaw na jigéen gi la yaakaar. xeex bi moo tam mu taxaw doomu njàmbur lakk nañu foofu noonu laa loolu dafa métti lool. am na yoo xam ne kenn du ko bàyyi muy raam dangay ngay teel a jóg nga lijjantika dafa am loo xam ne nag état moo ko moom li code de la pêche wax buñ ko appliqué rek jàmm na ñooy parce que tamit nit warul mën a fekk gaalu jàmbur surtout si essence taal ko. mesure yooyu il fallait que ñu def ay sanctions yu sévères. li nga xamni nak modi tension yu am ci diggante pêcheur kayaar yi ak Mboro doon li nga xamni nak nag ci gis waye tamit ci déggin lolé nak moo waxal ñi nga xamni ñodi ñoo yu nekk fi nga xamni modi quai de pêche bu yof di ñaan rek dal ndax dañu japp ni lépp rek ci seen biir la. mo ngok donc di euh, affrontement yo xamante mo ngi am ci.